te mu jugee ci ay responsable yu mag yu nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar ak i ministre yu nekk ci gouvernement bi njiital conseil économique social environnemental di Abdoulaye Daouda Diallo moom it mi ngi ci course bi naka noonu it njiital assemblée nationale mi ngi ci course bi Mahammed Boun Abdallah Dionne premier ministre Sénégal ba woon moom it mi ngi ci course bi Les Échos nañu tey ji ci ngoon ci le président Macky Sall war a gisee ak ñi bëgg a doon ko yaakaar lise ko mi ngi ñuy xamal ne liste baa ngay gën di yaatu jamono ji lu ñu néew néew mat nañu fukk ak lu teg ci ñoom dañu war a tànn kii wutu Macky Sall Macky Sall président national moom la soleil national xëyee ci xëtamu njëkk ba dañu xamal ne démb bi ñuy def ndajam conseil des moom njiit mi Macky Sall ñaawlu na fa ba fa ñaawlu yab li xewoon keroog ca yarax mu di minibus tata ba ñu fa taaloon ak i cocktail molotov ba ñaari doomi jeex tàkk ak ay cocktail molotov liise ko di ko dëggal ci xëtamu njëkk li mu bind mooy kees awu taal nañu ca dëkk ñaari gaar démb ñetti bus bus ñu ne dañu koo taaloon keroog talaata ca ñuy wax ne bari na ay lees waxul yu teeyum xel am ndax ñi ñu ne ñoo faatu ca bus ba ba léegi kenn gisul seeni néew ña newoon ca bus ba te yàlla def ñu mucc ca maanaam rescapé yi yéenekaay bi nee nañu ñoom it ba léegi amu ci kenn koo xam ne gis nañu ko ci ñu gis coow leeg werante bi ci journal yu ci mel ni Sud Quotidien Enquête yéenekaay Le Témoin ak ci Rewmi Quotidien cocktail molotov yi ak lorange yi ñaawteef ci réew mi bés bi le jour mi ngi ñuy xamal ne yëf yaa ngi bëgg ëppi loxo ne ginnaaw bis bi ñu taaloon keroog ca yarax am na ñetti mini bis ñu taal démb ca kees te li ko jiitu keroog altine nee nañu seen ay kagul gàddu woon seeni cocktail molotov songoon ab camion ba taal camion ba ca yarax cocktail molotov yi ci réew mi l'observateur mi ngi ñuy wax ne budul woon ak alkaat yi dinañu def musiba mbaba kumba mu rëy ca mbuur ca mbuur googee l'observateur mi ngi ñuy xamal ne jàpp nañu fa juróom-ñeenti malfaiteur yoo xam ne am na kenn ci ñoom kook nee nañu ab jàngalekat la ci université li ñu bëggoon mooy jël seen ay cocktail molotov attaqué ci centrale ba ca Malicounda tribunal bu Mbour ak marché bu mbuur nawetu ren bekk loraange yi ñuy ragal mu am ci inondation lii quotidien mi ngi ñuy baaxee taxawaay bi ONAS office national assainissement jël ca Touba ca Pire ak ca Richard-Toll ubbil yéenekaay bi bokk na ci ay moto ak i moto pompe yu mu jébbal mairie bu Touba mairie bu Risatol ak mairie bu Pire ñaari téeméeri bot long téeméeri brouette ñaar fukki watay pick-up ak ay masque li ONAS fas yéene journal bi nee nañu mooy taxawu commune yi jàppale association yi ba ñu mën a taxaw askan yi ba duñu dund benn coono mbay jafe-jafe yu tukkee ci inondation yi ndaje ma woon ca Banjul keroog talaata di troisième conseil présidentiel Sénégalo-Gambie journal Le Témoin ñu xëy na ci dellu si ak ay kàdduy leeral yu duuduka ministre transport aérien ma nga fay leeral déggoo yi ñaari di ab mémorandum bu ñu bokk signandoo ko ñaari réew yi mémorandum buy jëmmalu corridor aérien bi ñu war a taxawal ci diggante Ndakaaru ak Banjul signé nañ fayit beneenub accord bu yees buy remplacé bi woon 1995 li ko tax a jóg bokk na ci indi aw doxin wu yees ci li ñaari réew yi fas yéene séq ci wàllu sûreté sécurité ak développement aérien ci diggante Gambie ak Sénégal Sénégal mbamb li ñu fiy jaaba jonge fan yi yépp bokk na ci liirub ñaari fan bu jigéen bi faatu woon ci hôpital Abbas Ndao te ñu ne ci biir machine à laver ba ko fekk libération xëy na di yu yéeme yi feeñagum ci enquête ba ñetti nit ñi ñu ciy tudd di NB Silla R Ñanco ak Adjen ñoo nga ca loxo yoon ci enquête ba yéenekaay bi nee nañu kii di NB la nee na moo boole xale bi ak darab yu tilim yu dugal ko ca saak bi ñu def yére yu tilim yi ca seetlu ko li tax ba loolee dal ko nag enquêteurs yi gis nañu ne moom NB la dafa nekkoon ci téléphone am concentré wu ca ba tax xelam nekkuloon ci li mu doon def R Ñanco dib agent ca service des grandes opérations mooy ki jël yére yu tilim yi ko fa ñuy fóote ndekete liir bi mi ngi ñu dugalaale ca moom seetlu ko